kàdduy président Ousmane Sonko tukkee ci làmmiñu Jibi Gueye Ndiaye di porte parole président Sonko wax na wax ju leer jëmale ko ci ñi nga xam ne dañuy wër ci plateau télévision yi ak réseaux sociaux yi ak soi-disant politiciens yi nga xamante ne opposant lañu waaye seen yaakaar dafa tas ndax li ñu bëggoon wala la ñu yéene woon Ousmane Sonko moom dalul Sonko looloo tax wax di ñuy wër di wax ne Ousmane Sonko day dil wala day waxtaan ak Macky Sall ak lu mu ci mën a doon. tonton Djibi Gueye Ndiaye di porte parole Ousmane sunk wax na ne li ñuy wax lépp dara du ci dëgg ndax moom Ousmane sunk saa su nekk mu ngi koy gis te wax na ne. moom ci boppam du tiil amul kenn koo xam ne yónni na ko ngir rek ñu jéggal ko ndax deful dara luñ koy jéggale moom tonton Djibi Gueye Ndiaye. ma ngay leeral ne Ousmane sunk wax na ne ko ñaar fukki fan ci kaso bi ak ñaar fukki at la yemale. génn nag toog ci kaso bi la yemale ñoom ñoo defoon seen pexe ba dugal ko takkal ko tilimal ko tuumaal ko sax du moins ba jàpp ko tëj ko ñoom ñooy defaat seen pexe amnestie grâce ak ak lu mën a doon moom yoonam newu ci nekkul ci yooyu ndax moom projet am cinquante ans la ci kanam ci bëgg rek suqali réewum sénégal ba tax na mbokk yi bàyyi xel seen seen préféré seen njëriñ tv ñu teewlu kàddu yi tonton jibi njaay di porte parole ousmane sonko te li français la li wolof la mhm. mais nit ñi des fois dañ naan ki bëgg jàmm wolof lay wax quoi maanaam waxtaan ki bëgg problème moo naan deal parce que day nekk moo ba ngand mhm. mais ci wàllu woowu man li ma wax rek parce que Ousmane boo xam ne la dossier bi seen dossier la ñoom fi indi ñoo koy génne man pour dire vrai ah, mhm. am na benn jour boo xam ne dama ñëw bi ma Ousmane xoolee xam na ni dama mer parce que dama ñëw ma ne ko man dal président dama bëgg xam exactement qu'est-ce qui se passe parce que man bu ma génnee diil waxtaan nangam sam te man mi fii ñëw chaque jour ndax xanaa war naa fi mën a taseeg nit wala bokk war naa mën a gis koo yónni wala war naa mën a bokk ci bokk ñi nga xam ne wóolu nga leen ba di leen yónni mais bu ma gisul loolu yëpp dégg coow lu jàppal bàyyil mais man je ko comprends parce que boobu xol laa waxee mu ne tekk di ma déglu ma wax a wax a wax ba pare mu ne ma xam nga euh, tonton ji bi mu ne ma dafa loo xam ni boo ko xamul ci man ba léegi yaa ngi commencé bëgg réer man kenn feesul sama bët hmm. man bu ma doon dil damay taxaw ni damay dil assumé ko bi ci des yow kan nga gis fii ma woo ko ne ko kaay demal ma bërëb sàngam te xanaa bu ma yónni ñetti nit naa la ci boole hmm. wala naa ne la demal ne diw ak diw diw nañ ma demal fenn ndax yu bari yow laa ko daan yónni nga di ko wax ci responsable yi wala yenn yenn ñenn kon tey bu loolu amoon kay xanaa naa ne la neel diw ak diw nañ ma demoon bërëb sàngam te gisoo ma yabal kenn wala ma yabal la ci kenn te gisoo kenn dëkk dugg fi ba may waxtaan waxtaanam di ko yabal maintenant nag li am mooy mu ne ma man bu fekkee ne état bi dafa yabal ay nit ñu ñëw toog di wax dama leen di déglu ñenn ñi dama leen déglu ñenn ñi je ne même pas de les recevoir parce que xam naa leen di ñëw mais ku ma ci déglu ba pare man sama kàddu ñett la ñaanuma dara. négocier wu ma dara toog fi ñaar fukki fan ak ñaar fukki at laa yemale dossier bi seen dossier la yéen ma fi dugal yéen ma fi génne lu ngeen def baax ñu jóge fa di wax waxi peut-être Atepa ak Alintine Alintine je crois que bu ma juumul moom wax na ko ni dama fa effectivement dama fa mais Atepa ma fa dem peut-être que dafay xaw a gauche sax ma nettali ko parce que liñ naan am na yoo xam ni boo dee chef de protocole mm-hmm. waroo ko wax mm-hmm. mais dafa jar leeral Atépa moom ba mu fay ñëw nee na borom réew mi moo ko yónni mm-hmm. te bi mu ñëwee Atépa defu fa dix minutes man Jibi Gueye Ndiaye may wax dinga na man ma nag la moo tax defu fa dix minutes parce que foofu la wax ci duma ko fàtte parce que benn jour ajuma la mu woo ne ma maa ngi dem ma wootee ne leen mi ngi ñëw ñu ne ma Ousmane ne na xaar ba après juma loolu tax may la ajuma moom Atepa mu ne non mënul xaar loolu parce que il est midi balaa midi demi mën na ko gis pour problème mu boobu laa ci gëj a dara ba ca suba parce que dama toog toute la journée gisuma euh, awma retour Atepa ba ma demee ci Ousmane ne ko bi woowu <laughs> mu ne ma paa bi de. def fi sax dix minutes ma ne ko ah mu ne ma waaw parce que bi Atepa duggee te am naa lu ma ko confirmer bi mu duggee ñëw bu nuyoon teg dafa toog garde pénitentiaire bi ñëw jël chaise am teg toog parce que foofu booy recevoir visiteur garde pénitentiaire bi lay toog Atepa jóg taxaw na ko mais kii na fi génn parce que li ma war a wax a yow kenn war ko dégg ndax kilifa moom a yónni Ousmane ne ko kii de du génn parce que liggéeyam lay def. képp ku fi ñëw dafa am droit toog boo bañee mu toog il faut nga dem ci kilifa yi nga wax leen ni da nga bëgg a wéet ak man su boobaa ñoom ñooy joxe ordre bu ko defee mu génn hmm. mais avocat yi kese ñoo fi mën a toog mu génn taxaw na le mais keneen ku fi toog waa ji day toog ate paa ne ko kon maa ngi dem lijjanti ji jilol. foofu la mbir mi yem moo tax may la def minutes kon loolu foog naa ni buñ ko yóbbante woon sax yóbbante bi jotu koo wax <laughs> muy benn yoon boobu mu ñëwaat fa parce que deux fois kese la fa ñëw te bal diggante bi mat na dix jours ba mu ñëwee am na loo xam ne liñ naan bugguma di ko wax parce que bugguma di xawis mais mën naa ne ci gàttal euh, xamoon na laa mën a def te dañ laa ndax diggante bi comme dafa wax ay RFA RFI wax RFM mun naa ne daal sa waay ci gàttal daf na ko daal man jàpp naa ni doxalin bi man sama kilifa nga bugguma ñu di ci dugal parce que rafetlu ma ko ndax am na loo xam ni ñoom bu ñu ko nangul comporté woo en tant que kilifa yow da ngay comporté foofu maanaam am na loo xam ne bul jaratu ko daal voilà bul nangu ñu lay doyadil wala wala jarul ko wala ñee da leen war a yemale seen ànd xam nga ndax dégg ngeen wax ci loolu moo fa am man de vraiment bu loolu weesoo bu dee am na keneen ko fa ñëw gisuma ko dégguma ko te xawma ban heure la fa ñëw mais lii moom Alioune moom vraiment moom am na sax courage ne ñëw te mënu fa ñëw parce que demande na autorisation ba sonn doyen des juges nangulu ko donc kon bu ñuy wax ay deal ay négocier man de ca fa ma toll gis naa ni même ko fa ñëw di ko wax bu la dégloo tamit loolu mooy ay kàddu maintenant nag comme nag dañuy wax ay décryptation te Ousmane tàmm na di wax ni moom kenn du négocier ak pistolet ci tàmpam mm-hmm. te kon dama jàpp ni kat dindi pistolet bi mooy bàyyi bàyyi bàyyi nit ñi ñu dellu setal seen der fexe xanaa ñi dee ñu indemniser leen vraiment peut-être delloowaat ko ay ay ay ay ay ay droit xanaa ñàkkul su boobaa dina war a mën a bokk taw waxtaan ndax moomoo nit ñi nag tamit mm-hmm. ndax am na loo xam ne nag bu ñu la ko defalee su boobaa ña la jiital ña la jiital dinañ la war a mën a nangul yooyu tamit nga xool démarche bi ci ban sens la jëm donc loolu daal laa la mën a wax ci li wax ay deal ak ay dialogue ak négocier daal. ñu bari ci askan bi amuñu dal te teeyuñu ñu bari ci Sénégal yi dañuy dégg téel rek ne damm na waaye vidéo bii nga xamante ne moom Djiby Gueye Ndiaye di porte parole président Ousmane Sonko def na ko képp ku ko seetaan rek war ngaa gën a am ak xel mu dal. wala sax xel dana war a dalaat ci ki nga xamante ne mooy sa njiit di sa leader di président Ousmane Sonko du dil mukk ak Macky Sall wala sax du dil ci ginnaaw ndodd si askan bi. wax naa waxati ba sonn Ousmane bu doon ay deal rek ak ay négociation aki waxtaan du dugg mukk kaso ndax am na doole boo xam ne ak kàttan gi nga xamante ne peuple bi ñoo ko jox bu ci sukkandiku woon rek mën na leen war comme ni ko ñëpp defee Khalifa Sall def na ko Karim Wade def na ko waaye Ousmane Sonko dafa am lu ko tax a jóg dafa am lu mu bëgg ci Sénégal dafa am lu mu bëggal Sénégal waaye am fu mu ko bëgg yóbbu kon kooku yàkkamtiwul moo tax ci vidéo bi Jibi Gueye Ndiaye mi ngi xamal ne Ousmane Sonko nee na ñaar fukki fan wala ñaar fukki at bu ko doon def ci Cap Manuel loolu moog benn fan ñoo yam ci moom. ci tënk génn ak nekk ci kaso bi ñoo yam ci moom moom projet la doon défendre Sénégal la bëggal jàmm moo tax boobu ba tey mu nekk ci trajet bi mu nekk li ko ci fekk nag. ay tappale ak ay mbëgg sërëx ay piège ak ay complot ci ay way politiciens yoo xamante ne seen bopp kese moo leen ñor ba tey ji ñu yóbbu ko fële ci Cap Manuel. kon bu doon ay négociation rek Ousmane Sonko Macky Sall pare na pour jox ko. budget Sénégal pour mu génn. te te te mu bàyyi politique wala sax mu ñëw ranger ci côté am Sall pare na sax pour jox ko lépp loo nga xamante ne. moo xam premier ministre moo xam post bu mu mën a doon kon ay poste ki alal ak i xaalis taxul Ousmane Sonko di politique nañ bàyyi xel ndax fële ca maire de Ziguinchor salaire am ci boppam laalu ko essence ba nga xamante ne ak oto bi nga xam ne am na droit ci am ko foofee loolu lépp da ko dugalaat ci maire bi. loolu sax dafay day lu yees waaye ba mu doonee député tam noonu la woon ba mu nekk impôt domaine nag def na fa fukki at ak juróom te ku nekk gis na Ousmane Sonko musul nekk ci ay deal mosul nekk ci corruption mosul nekk ci ger te loolu sax moo ko fa jëlee kon duñ dem ba mu am ndam. ba ñoom ñi ko jiiñoon takkal ko ne ko yaa def li yaa def li dem ba seetal ko ba bëgg ko génnee par force te moom laajul dara dara du amul lenn loo xamante ne laaj na ko lu dul boo seetloo video bi Atepa ñëw na fa mais fukki minute la fa def lan moo a mu def fa fukki minute mooy gardien pénitentiaire bi nga xam ne toog na ngir mën leen déglu mu bëgg mu génn son ko bañ ndax kooku laa moo ko fa teg te pour ñoom ñaar ñu wéet faw moom mu laaj ko autorité yu mag yi. kudul avocat moom rek la mën a wéetal waaye kudul keneen koo xam ne da nga ñëw ngir seet ko ni mu toogee noonu la gardien pénitentiaire bi di toogee. kon nag bu ñu sukkandikoo ci vidéo bi nga xamante ne Jibi Gueye Ndiaye def na ko ci làmmiñu Ousmane Sonko ci jamono ji ak jamono yi nga xam te nekkul ci foofee ci Cap Manuel te di nijaayam di léppam di ko xamante ne saay bu génnee la muy wax mooy Ousmane Sonko nee nañu ci loolu rek la war a sukkandiku kon day wax ne Ousmane Sonko ak Atepa fukki minute defuñu ko. kon nag Ousmane Sonko yónniwul kenn Macky Sall moo yónnee ci moom. waaye Atepa amul benn garantie wala lenn loo xamante ne Ousmane Sonko wax na ko ngir mu wax ko Macky Sall laajul amnistie laajul grâce ñaanul ndimbal ñaanul jéggal ndax tooñul kenn la ko fay génne ñoom ñu ko fa dugaloon seen pexe ak seen tàppale yan def ba dugal ko fa loolu moo fay génnee. kon ñii xataraay bokk ci opposition nga xam ne kenn ñoru leen ku du Ousmane Sonko bu ñu sañoon kaso boobu du fa génn bu ñu sañoon Ousmane Sonko dee politiquement waaye Ousmane Sonko mi nga xamante ne. boobu ba tey ñoom ñu ngi fexe seen pexe ànd koog Macky Sall mel ne comme ay bukki yu sàngoo deru béy nga xam ne la ñuy wax dara gëmuñu ko ci ñooñu ñooy wër ci plateau yi di wax ne dil am na ngir rek bëgg gëmloo ne askan bi bu ñu leen waxee lu ñu mel dinañ bàyyi Ousmane Sonko nañu noppalu te xam ne yàlla ci boppam moo taal Ousmane Sonko ci wàllu politique. moo ko taxawu te moo ko taawu ci lépp lu nga xamante dugg na ko kon képp koo xamante ne da nga am lu lay metti ci mbiru Ousmane Sonko yow jàpp naa ne sa dund dana metti lool ndax Ousmane Sonko ku ne xam ne doxul ci li nga xamante ne mooy politi politiciens yi di dox doxul ci ay dil waaye doxul ci ay wor ay askan li muy dox mooy fexe projet bi mu am ànd ko waa Pastef ànd ko waa Sénégal ñëpp ñu fexe rek kenn ku ci nekk la ak foo mën a nekk wala sax li ñëpp bokk ñëpp jot ci anam boo xam ne séddale lañ koy def ci maandute loolu mooy Ousmane Sonko te Ousmane Sonko ci boppam ku ko déglu rek ci wàllu politique doo réer te ku ko bàyyi xel di xaar ndigal yi nga xam ne day tukkee ci bureau bi te jaaree ko ci El Malick Ndiaye am na yenn futilités yoo xam ne doo ci dugg.